<laughs> Bougane machine calcul bi moo yàqu xam naa te ki ki li mu calculé moom boo ko laajee lii da lay jox lii quoi moo tax quoi mais bug daanu nga ci kàmb gi de daanu nga ci kàmb gi de seet lii mooy faf nag opposé wu nga Sonko mu dëgër nga wàcce ji jomaay mu dëgër nga ne xaaral ba jël ñaareel bi naa opposé jigéen ñi waaw lii da nga man wat bang jëflante ak jigéen ñi loolu nga man moo tax nga ne na nga ak soxna si njiitu réew mi lii nga man wat bang góoru wat bang nga mais yow problème mu calcul nga am quoi bugaat <laughs> sa clavier bi moo baaxul defal defari ko suwaay <laughs> di nga wuti xam-xam de xam-xam da nga ko wuti de argument débat di de di ko wuti tant que wuti woo ko boo fi wax suñ classe gi rek ñoo lay tontu. Basiru calcul bi moo moo réer quoi Basiru calcul bi clavier clavier bi sac bi 16000 yi gars yi wax sax fa bu nga tey di calcul këcc këcc sac bi ne ko millions rek mu taal laay bi daal taal soxna jiitu réew mi jot 3 millions lay jar danga dee de danga dee de barke alxuraanu saa boo waxee. midi midi cinq géey gars yi génneel la say fen mënoo noppalu te gëm yàlla